salaamaaleykum suñu mbokk internet yi ñuy teewlu ci seen chaîne Vision Dakar TV ñi ngi am mbégte ak contenté di leen dalalaat ci suñu plateau tey nag si euh, suñu plateau ñu am ñaari ganna di Ousmane Sall di yëngu ci wàllu euh, transport aérien ak kile di Ibrahima Joxaane di yëngu ci wàllug immobilier ñu fas yéene waxtaan lépp li nga xamante ne mooy yéen la tolluwaay réew mi actualité xanaa ñu bàyyi leen rek ñu nuyoo ñu mën a xuus ci waxtaan wi. ñu dalal la suñuy gan rek di leen bàyyi ñu nuyoo ak suñu mbokk internet yi ñuy teewlu Ibrahima maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm suñu plateau. maaleykum maa ngi leen di maa ngi leen di di leen gërëm di gërëm aussi Vision Dakar TV ci initiative bu rafet bi mu def nga xam ne li tax mu jug rek mooy yeete ak alerte comme ni ko bay Fall bi defee tout le temps. Euh, di présenté wu Ibrahima Leen Joxaane di administrateur de patrimoine immobilier di gestionnaire de sinistre en Euh, ñu war waxtaan tey jii nii ci actualité bokk aussi ci kuréel gu tudd RETAC di regrouper vraiment tous les anciens élèves euh, de l' école 5 école Pikine 5 euh, leen gërëm bu baax di leen sant di leen fi teewal indirectement aussi ah parce que c' est vrai que dañ fi ñëw vraiment comme citoyen pour waxtaan ci ci sujet les différents sujets ok di leen gërëm bu baax di leen sant. <laughs> ah gannaaw nuyoo bi nga ah, gën a présenté wu nga xamante ne suñu mbokk internet yi ñuy teewli dinañ gën a xam kan mooy Ibrahima. Ibrahima leen joxaane laa tudd euh, di yëngatu euh, ci immobilier ci tout ce qui en fait euh, je suis administrateur en fait de de patrimoine immobilier ou la gestion immobilière en général di aussi yëngatu si lépp lu tudd lépp lu ñuy wax gestion en fait en sinistre bu jëm ci affaire copropriété. copropriété nag bu ñu koy wax mooy dëkkuwaay yu bees yi li ñuy tuddee condominium wala appartement que ça soit divise ou indivise ak euh, yeneen daal am nag benn passion boo xam ne moom mooy mbay waaw bay moom dama ko bëgg du lu ma jàng waaye bëgg naa ko lool ndox yaakaar naa ne développement dëkk bu ne fa lay tàmbale ñu nar a ak moom ci waxtaan bi waaye ñu présenté leen suñu beneen gan di Ousmane Sall ñu ngi lay nuyu bu baax di la dalal ci suñu plateau di la bàyyi aussi nga présenté wu ak suñu mbokk internet yi. Euh, <coughs> donc salaamaaleykum donc euh, Vision Dakar TV donc euh, ñu di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal di rafetlu aussi vraiment euh, taxawaay bi ngeen am. aussi di participer ci développement wu dëkk parce que comme ni wax rek dëkk moom àdduna communication moo ko yor. te taxawaay bi ngeen ci am aussi ñu ngi leen ciy jaajafal bu baax a baax man maa ngi tudd euh, Ousmane Sall ni nga ko waxee noonu la di liggéey ci transport aérien euh, mais aussi nekk syndicaliste délégué syndical en même temps que délégué personnel euh, doon koo xam ne aussi ku bëgg enseignement la dama ca du ma ko ku ma waxoon ni sax doo nekk enseignant duma ko gëm lu mu bëgg la ba tax ni euh, école bu samay euh, tout tànk di nekk dinaa fa dinaa fexe su ma bokkul aussi ñuy saytu ci ni école bi di demee dinaa fexe ba di ci dugal sama sama loxo ak sama lépp donc loolu ñu ngi ko ñu ngi ko donnee ci ñi nga xam ni ñoom ñooñu ñoom ñooñu dalal baax ci primaire donc au passage ñu leen ciy gërëm bu baax a baax a baax di leen sant ci éducation bi nga xam ne ñoom dañ ko jëlee ci sunu parent yi lu ñu def ci ñoom ba pare ñoom ñu ñoŋal ko ba ñu mën a toog fii tey di waxee ak noonu donc vraiment loolu tamit sant la sant bu baax on a eu la chance d'avoir des enseignants de de marque macha allah donc euh, en l'occurrence euh, ku lim sax da ngay fàtte mën nañ ci wax monsieur John monsieur Ba euh, le directeur Ran Ndiaye monsieur Mbaw ñoom ñëpp. donc am ci ñoo xam ni sax wuy ji nañ sunu borom ñoo ngi leen di ñaanal sunu borom moom mi nga am jéggal yàlla na leen yàlla jéggal fay leen ci fay gi gën ci fay gi ndaxte def nañu lu gën ci ñun donc jërëjëf merci beaucoup. jërëjëf euh, Ousmane ci noonee sax la ñuy xuus ci suñu plateau xuus ci suñu waxtaan. mu mel ni fi nga daanalee sax foofu laa yëkkatee di wàllu njàng ak njàngale ndax ni nga ko waxee yaa ngi sant say professeur ñi nga xamante ne ñoo la tàggat sol la xam-xam ba tey nga mën a doon ki nga doon mu mel ni kon jàng ak njàngale am na solo waaye ci moment yi ñu toll ni mu mel ni doon na lu fi sooxe fii ci suñum réew ñi ngi nemmeeku ci ay bés yi ñu génn ay grève yu takkar naa si bu njëkk sax dañ doon gis enseignants yi ñoo doon grève mais léegi dañoo dem ba ndongo yi ci boppam ñoo wàcc sur le terrain di sàkku ne dañoo bëgg a dellu ci classe yi ndax lan ay accords yi nga xamante ni dox na ci diggante état ak jàngalekat yi respecté nañ ko respecté wuñ ko dugal nañ lii dugal nañu dugaluñu lii ba récemment ci seen euh, mujjee waxtaan fasal nañ ne 90 milliards dugal nañ ko ci yooyu la accord ba tey mi ngi tagga témbel jàng bi ndongo yi ba tey ak sax waajuru ndongo yi dem sax ba wàcc ci tali bi di ñaxtu ne dañoo bëgg seeni doom jàng loolu yéen en tant que ay parents d'élèves en tant que ay acteurs de développement fii ci réew mi lan ngeen ci mën a wax lan moo ci nekk seen jàngat ñu doore ko Ousmane. waaw euh, fi ñu tàmbalee moom fu fu fu am solo la parce que dafa am loo xam ni ci àdduna sunu borom bi moo moo ne xam-xam mooy defar mooy defar àdduna xam-xam moo tënk àdduna te ku nekk ci ñun rek fa nga jóge ca ña la yar dañ lay dañ lay yar ci ci ci ci ci lu spécial spécialité bi du leneen lu dul ci sa culture xam nga. askan woo dem rek ci sa culture boo demee ci injiens yi ñoom dañuy fier dañuy am fierté ci li ñu nekk indien boo demee ci pygmée yi la même chose boo demee ci ci Casamance foo dem rek ci àdduna ku nekk da nga jël sa culture moom mooy moom mooy pilier bu gën a am importance maintenant éducation bu ñu koy waxee ma nga tàmbale ca ba muy doon tout tànk la response la première responsabilité bu ñuy wax ci éducation ci parent yi la d'abord parce que amul benn réew boo gis ci àdduna bu développé jël culture am ses valeurs culturelles ses valeurs culturelles teg ko de côté amul ça n'existe pas ah man de gisuma ko bu amee feneen tamit mën nañu dem jéem a dem xool euh, ñoom naka la ñu def ba bàyyi seen éducation bàyyi seen culture pour mën a développer donc mu doon lu essentiel lu rôle le premier role c'est le rôle des parents d'abord la responsabilité qu'ils ont pour yar seeni doom ci ay jikko d'abord loolu mooy li capital da ngay yar sa doom ci jikko nga def ci moom de zéro à sept ans parce que day nekk ak yow nga yar ko ba mu tàmm loolu bu génnee ci sept ans bi de sept à quatorze ans li ko li ko Amadou Amadou Ampaté Ba doon waxee wala ñoom Cheikh Amidou Kane ñoom ñëpp de de sept ans à quatorze ans de de quatorze ans à vingt et un ans muy ñetti tranche yoo xam ni parent bi de zéro à quatorze ans dafa am obligation di topp doomam ci éducation parce que bu génnee ci sept yi ci lay dugg école wala six ans ci lay dugg école di dem ci école bi di jàngi même bu dee day jàng ci école primaire bi ñun lu ñu tamaloon mooy du ñu toog une semaine ci biir semaine bi gisuñu deux fois suñu parent mu ñëw wax ak xool sunu enseignant yi qu'est-ce qui se xale bi ci ban niveau la toll et cetera et cetera ki ñu lay dénk nag mu nekk enseignant bu ñu génnee ci kër gi nga dugg ci école bi il il faudra le faire par amour d'abord faudra le faire par amour parce que gone gi bu ñu la ko dénkee nekkatul jaamburu yàlla bi ñu la dénk sa doom lañ la dañ la jox doom nga war ko def sa doom pour yar ko pour yar pour yar nag xale dafa am ay capacité yoo xam ni yow da nga ko war a am maanaam kii yar gone gi dañ ko war a tàggat yenn yi doo jógee fële rek ñu jox la pour nga ne ok jàngalal xale bi parce que pour nga jàngal xale bi ba mën a dugal dara ci boppam dafa am ay comportement yoo xam ne moom nga war a yor maintenant aujourd'hui beneen chose dafa am solo trop trop trop man Ousmane loolu laa gëm gis nga l'enseignant il doit avoir la plénitude de ses pouvoir ci biir classe am warul nekk ci classe muy am demi mesure am lu mu war a def ak lu muy def di tàggu keneen euh, je reviens en arrière di ñëw ci ñun parce que looy wax rek da ngay am repère ñun muy man muy Ibra muy ñoom seer ak keneen keneen ñun suñuy enseignant mais bu ñu leen gis bu ñu leen gisaan dafa mel ni ay messi la ñu gis dafa am comportement yoo xam ni ñemewuñu ko am ci classe bi ci classe ba sax la ñuy gën a ragal que ci kër ga parce que boo defee dara ci kër ga bu ñu la booleeg sa maître da nga naan àdduna tukki na tout ça rentre dans le processus de l'éducation de l'enfant ci sunu culture nag dafa am loo xam ne dafa lu ñu envahir dans notre culture ñun sénégalaise dafa am loo xam ne xale dañ koy yar yar la ñu wax il faut pas qu'on noye à deux mesures way indi la culture occidentale xale kenn waru ko jooyloo kenn waru ko dóor déedéet am na loo xam ni ça ne peut pas marcher maintenant le système éducatif sénégalais moo dem ba mu am détérioration bu garaaw ci dëkk bi ñu dugal ci xaalis dugal ci business la dafa ba mu nekkee business nekk politique la la la hybride kenn xamul ban tànk la taxawee Et la preuve aujourd'hui, tu vois des enfants qui ont un niveau très faible. Depuis que nous les programmes d'ajustement structurel au Sénégal et en Afrique, chaque fois, gis ñu ne nous nous sauver l'année. Chaque fois, on dit nous nous sauver l'année scolaire. Mais c'est grave. C'est ce qui est grave. Nous nous sauver l'année. Nous nous sauver l'année. Nous nous sauver l'année. Et de fil en aiguille, voilà, le niveau baisse. Sénégal c'est la porte de l'Afrique Sénégal moteur la woon en Afrique ci wàllum éducation ci wàllum ci wàll boo jël rek Sénégal dafa am tax taxoon mais sur le plan éducationnel aujourd'hui vraiment c'est ça on prête le flanc. lu ci classe yi yan moo nga ci mën a sànni. waaw merci beaucoup ci ci ci ci question bi question bu am solo nga posé en tant que parent d'élève mais aussi en tant que euh, euh, citoyen sénégalais tout simplement. man li may wax mooy ça des années des années mën naa ne ça fait plus de vingt ans on n'a pas eu une année scolaire normale au Sénégal waaw primaire beeg scolaire beeg secondaire beeg universitaire et cetera même la recherche ne marche pas au Sénégal donc école sénégalaise fi muy njëkk a sooxee mooy par lu contenu li ñuy jàngal ñun moo la koy wax mooy Ousmane mi xam na li ma koy wax bu ñu nekkee terminal yang cekaay lañ ñuy wax ay cànkaay cek <laughs> xam nga la révolution chinoise xam toog donc pourtant y a eu des révolutions à la région Toro de xam nga am na ay révolution yoo xam ne dañ fay jaar am luñ fi indi lu gën a leer loolu lu gën a méngoog ñun suñ dëkkuwaay ak suñuy nekkin xam nga mais loolu yëpp dañ koy jël teg ko fële parce que tout simplement gëmuñu suñu bopp dañoo xeeb suñu bopp ku ci ne ci ñun rek comme parent d'élève tu es préoccupé parce que grève bi fu mu nekk nii kenn xamul fu mu jëm on parle aujourd'hui lan la ñu wax état bi joxeegul na lan ñu ngi discuter en fait sur des accords wax nañ fi quatre-vingt-dix milliards mais le problème c'est pas ça problème mooy quatre-vingts milliards quatre-vingt-dix milliards yooyu ñuy jox enseignants yi ñaata ñaata at la enseignants yi toog di daw ça fait des années et des années on parle de non respect des accords lu état bi wax ak ñoom rek def le contraire safaan wala état bi def parce que tout simplement fa ñu teg éducation la éducation fañ ko war a teg mooy fa ko yeneen dëkk yi teg dëkk yi ñaan ñoo ñu jiitu économiquement et cetera boo xoolee le budget en fait bi ñu jël di ko alloué à en général à la recherche et lu bare bare la parfois ça frise les trente et quelques pour cent mooy budget yooyu ak budget de la santé et cetera mais fii dañ ko ñàkkal fayda ñàkkal fayda ba kenn mënul wax sax lépp ni ñu yàqee fu mu nekk nii l'école publique ñun ñëpp nous sommes des produits de publique ñun ñëpp école publique dafa amoon solo ba nga xam ne ni ñu ko yàqee lañ yàqee aussi les les les les hôpitaux et cetera tous les services publics lu ci ne rek on crée un parallèle ay école privée di fayloo nit ñi lu dul jeex ay tenues bis bu ne fi mu nekk nii mais aussi xam nga Sénégal dafa am ay paradoxe Sénégal rek man laay gis wax dëgg yàlla ça je je dis entre guillemets ay xale yu dem jàng dellu siwaat na seen madame dafa dem ngénte xam nga aussi il faut qu'on regarde au fait fan l'affaire yi di sooxee ci côté yëpp l'État est responsable mën naa ne à quatre-vingt-dix-neuf mais enseignants aussi il faut ñu bëgg li ñuy def ba bañ ci jiital li ñu naan koom mais quand même war nañu am aussi un niveau de vie boo xam ne c'est décent enseignant dañ ko war a garantir l'habitat le logement war ko garantiir leneen ak leneen ba nga xam ne mais na dëkk yoo xam ne fu nekk nii mais les enseignants sont les mieux je crois c'est au Japon en Corée waaw enseignant parce que dañoo xam ne kii mooy togg nit te Ousmane mi ngi koy wax léegi-léegi c'est une chaîne gis nga affaire bi du école bi rek te gis nga chaine boobu parent yi la école bi mbedd mi gis nga lu ci am rupture rek xale bu du mat avant l'enfant c'est le village moo ko daan yar léegi da ngay dem sax ci école bi seulement ko dégg mu naan la plénitude des pouvoirs de mais loolu lu wér la c'est-à-dire enseignant dafa tous les droits sur l'élève un élève n'a pas de amul droit nañ ko wax rek te de dañuy yar ko yar ni ko pa bi waxee woon rek je crois que maa ngi doon déglu kii mu koy wax la Ahmed Ali moo ko doon wax non non je sais pas lui c'est c'est kii nu tudd encore pa bi Pa Lamine Diack moo ko doon wax ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm mu ne yar ñaar rek la soo da ngay contraindre wala nga convaincre mais amul négociation ni xaleel da ko war a teg fi nga ko war a teg bu màggee nag si lay xam fa nga ko war a teg on doit former des citoyens à bas âge tàggat leen xam loo leen lan bëgg sa dëkk leen jàngal ñi nga xam ne mooy mag ñi nga xam ne ñoo newoon tey jii ci dëkk bi di fi liggéey di fi def leneen ak leneen mais tey jii nit ñi jàngal dara dara amu ci solo yow mi ngi jox xam nga ko man xam naa ko Ousmane xam na ko mais c'est pas dans l'intérêt de l'État mu dindi pourquoi parce que ay nit la ñoo xam ne dama yàlla baal dañoo teg seen biir bopp yi. am na solo dañuy wéyal ci suñu waxtaan am na solo mu mel ni 40 pour cent du budget national secteur bu ñu koy dugal rek war na jur njariñ jot na nag ñu toog ñi sekk mbir mi daal di ciy waxtaan ndax sóoraale rek ñii di ndaw ñi ak seen ëllëg dañuy wéyal rek wax ci wàllu ko politique mu mel ni jóge nañ ci ay élections locales bay dëgmal li la di élection législative tànn ñi ñuy teewal fële ca pencum ndaw réew mi ba sax ministre de l'intérieur daal dinay woote ñi leen di coalition yi ngir rek ñu càmbar caution bi ñu war a demee ci boobule euh, jongante xanaa rek a ñu bàyyi leen ngeen joxe seen kàddu ci li leen di tolluwaayu politique euh, bu suñu réew. sur le plan politique ni nga question bi nga laaj question bu am solo la euh, politique moom ce n'est rien d'autre que c'est de l'art de gérer la société de bien gérer la société loolu mooy la définition étymologique de la politique. maanaam askan bi ñu bokk naka la ñuy def ba déggoo ñu déggoo xool kan la ñuy dénk suñuy mbir moom mu dem jaamu suñuy soxla te di ñu rendre compte étymologiquement loolu la maintenant nag euh, ñu bëri dañoo jël ci biir politique bi dugal ci ay idéologie politique jaara nañu gis nañu libéralisme gis nañu communisme gis nañu socialisme bu nekk gis nañ ko mais bu ci nekk jàpp nañu ni échoué nañu aujourd'hui fi ñu toll nii ci àdduna dégg nañu ni euh, fi mu toll nii Vladimir Poutine mu ngi bëgg envoyé envahir àdduna bi ñi am sax ñuy ragal troisième guerre ñi nga xam ne ñoo doon dawal philosophie yooyu gis nañ fi Adolf Hitler gis nañ fi lu mu bëggoon imposer la race aryenne waaw boobu moo gën et cetera et cetera foo dem rek ci baasu jàpp ni man sama politique moo gën ñëpp da ngeen di topp sama ginnaaw mais tout seen seen kii yooyu yëpp idéologie yëpp dañu échoué mais ñun encore je reviens ci ñun ci suñu bopp ñun on a fait la première révolution la révolution torodo de Thierno Souleymane Baal la première révolution moo njëkk bu Jules Ferry euh, on a eu les les les les les, les meilleurs hommes tey bu alxuraan réeroon maa ngi ciy jégalu ci kàddu gi Serigne Cheikh doon na wax ni gëmuma ni du feeñee feneen fu ci Sénégal ndax xaadimul xaadim Seydil Hadj Malick Thierno Omar Foutiou maam limaamu et cetera et dañoo jaamu seen borom ba mu fay leen te ci leneen lu dul jaamu ak jikko yu baax donc cette politique là pourquoi pas yow nga gëm sa bopp ba am soubassement la politique mouride Masalikul Jinaan en un temps record nañ ko defar ci lu leer amul kenn waxul njuuj njaaj na ñu dugal ñuy luubal nañu clair limpide vite fait bien fait jumaay Tiwaawoon kazalika et cetera édifice ñu ngi ñoom ñu ngi ñuy jox exemple que ni ñun ci suñu société ci suñu gëm-gëm suñu politique sociale et culturelle buñ ci sukkandikoo war nañu mën a defar dara mais dañ koy bàyyi toujours de côté on fait la promotion de naxante kii dafa xereñ ci politique parce que dinaa ut ay pexe yu ma la galgalee ba ba ba faagaagal la te bu boobaa doo ci jiital éthique doo ci jiital déontologie muy dëgg dëggu ak pas-pas da nga ko ciy teggi am na valeur yoo xam ne dañ koo teggi léegi ci politique bi ñuy def muy def la politique des jég maa ngi jégalu ci ci wax ji euh, la politique des de de des des hommes faibles pour ne pas dire des abrutis excusez-moi du terme te loolu du suñu jikko du suñu culture il faut que ñu revenir ci ay fondamentaux et c'est essentiel il faut ñu def ko kooku falaa budd il faut ñu def ko maintenant nag génn nañ fi ci ay élections municipal gis nañu li mu joxe que ni askan wi c'est le c'est le peuple bi moo dé moo détenir le pouvoir da koy dénkaane rek da da koy jox benn instant boo demee ba yaakaar ni yow la rek le peuple bi moo koy dindiwaat ci yow et le peuple a donné un signal fort en disant ci politique yi ngir yàlla de leen ñu ci sóoraale am na ñoo xam ni population sénégalaise boo ko xoolee léegi ñu ngi ci entre 16 et 17 millions million a combien de sénégalais qui vote même pas le tiers mais ñeneen ñi nga xam ni ils sont toll nañ ci atu voté te voté wuñu ñoo ëpp sax ñi nga xam ni ñooy voté mais ñooñu ñu ñoom ñu ngi ko tuddee électorat euh, inerte ñi nga xam ni duñu dañu toog seen kër ne ñoom du ma dugg ci mbiru politique mais quand il s'agit de prendre une décision par rapport ak yi nga xam ni ñu ngi ci dañoo dem ba tollu ci naan ànd sàmm jikko yi sàgg diit bu ñu demee bay wax lool rek jikko yi mu ngi bëgg a donc ñi nga xam ne dañoo toog seen ñooy génn muy waa jàngu bi muy këru diine ji muy ñi nga xam ne aussi ci leneen lañu nekk ñooy génn ne il faut qu'on arrête il faut que le politiciens arrêtent aujourd'hui ñu sóor ni Sénégal dañ ko bokk te dafa am loo xam ne dañ ko war a sàmm maintenant qu'il s'agit élection locale wul élection législative bii nag mooy ñi nga xam ni ñooy toog ci assemblée pour voter ay loi pour ñi nga xam ni suba yow boo tooñee loi bi nga xam ni mooy dal sa kaw wala bu ñu la tooñee loi bi nga xam ne ñoo ñu utiliser pour nekk ko ah kii dañ koo tooñ lii ak lii mooy ay loi am lii ak lii mooy droit am et cetera ci yooyu nañu jëm euh, lu capital la maam abdu Aziz Sy Dabakh radiyallahu taala anhu yàlla na ko yàlla yàlla na ko yàlla fay gën ji fay te taas ñu ci barkeem doon na wax fi génn na fi boo wax fi lu am solo ne yéen ñi nekk ci assemblée di vote xool leen ci yàlla boo leen di voté pour Sénégal ndaxte àtte day am ku yaakaar ni di nga ko def te duñ la àtte juum nga ba pare teg ci àdduna boo ko bàyyee mu bàyyi la boo ko bàyyiwul mu bàyyi la da koy jéem a bàyyi bala mu laa bàyyi danga jàpp ci yàlla te ngeen ni voté dëgg bu demee ba wax loolu jamono yu mu koy waxee ba tey te un signal fort que les ces gens nga xam ni ñoo nekk ci échiquier politique ba tey jànguñu ci dara c'est parce que tout simplement dafa am benn constipation bu am quelque ci ñoom naa nag c'est le peuple ki doo prendre ses responsabilités ñi nga xam ne ñoo war a dem foofu pour pour pour pour pour nekkal ñu fa nekk les députés du peuple les députés du peuple le député du peuple warul am li war a am mooy les députés du peuple du député Ibra du député Matar du député benn parti ils doivent être le députés du peuple parler pour le peuple parler avec le peuple et agir pour le peuple l'intérêt exclusif du peuple de tous les Sénégalais loolu mooy seen taxawaay te ku ci am beneen taxawaay bu dul boobu it nga jël engagement moral yow ak sa borom xam ni bis dina ñëw yow dong nga wéet ak sa borom te dala ciy àtte ñun ñun man man boog euh, appel boobu laa leen di lancé ñi nga xam ni aussi ce sont des sénégalais ñi nga xam ni aujourd'hui des sénégalais ñi nga xam ni wax dëgg yàlla am nañ pas-pas bi am nañu taxawaay bi nañu jóg engagé wu bañ a bàyyi juste ñi nga xam ni ñoo ñoo am benn coloration ci benn groupe bu ñu bokk pour ne ñoom ñooy les ils doivent représenter le peuple partout ils n'ont qu'à ñu génn sénégalais bu ñu xamee tànn leen ñu bokk ci ñi nga xam ni dañ leen tànn ci ay jikko ñu tànn leen ci ay jikko ñu tànn leen ci pas-pas mu nekk un contral moral entre eux et le peuple mais aussi mu nekk un contrat boo xam ni dañ koy layoo ji su penc il faut ñu koy rappeler gars ñi ñu koy xam parce que une décision politique mën nga ko jël mu sànk askan benn décision nga toog sa bureau signé ko wala nga dem signé ji benn convention à Genève wala ailleurs mu sànq askan mu sànq toute une génération peuple nag bu la éliree da ngay war a def yee ci peuple bi foo dem nga ne leen man sama peuple moo ma élire fii ma toog nii baatu askan wi laa fi toogal soo demee ba xamatoo la ngay def nga génn nga ñëw ci mel ni fii vision nga ne leen ah man de yéen a ma denkoon yónni woon ma li ngeen ma denkoon yónni ma fa ba ma dem gisuma fa la ma xam lii ak lii lañ fa xam lañ fa gis te loolu dalul sama xel nga wax ko le peuple et après le peuple va prendre sa décision par rapport à ça soit dañuy génn ci biti nee na doy soit ñu dem ci ci ci ci ci instances yi nga xam ne ce sont des instances régulières yi fi am pour ne na doy donc man gis-gis boobu laa ci am donc euh, ma paas. ñu euh, continuer suñu waxtaan bi yoon nag dañuy daal di xaw a génn réew mi tuuti dem ci sous région bi ak tension yu tar yi ñu fay nemmeeku ci ay bés yi ñu génn mu mel ni réew yi sekk CEDEAO bëri na lool ay tension jamono ji ay coup d'état ñu koy nemmeeku euh, ci réew yu bëree bëri bëri waaye itam bu ñu gënee génn. mu mel ni tension bi dafa sax gën a profonde ba actuellement sax li di Russie ak Ukraine ñi ngi ci benn guerre bu méttee métti ba ñu bëri sax di tiit ne troisième guerre mondiale mën na fee am boobu la crise jëm ci sous-région bi ak it ci biti réew sax lan nan moo ci war a nekk taxawaayu Sénégal surtout nag suñu président nga xamante ne moo nekk président en exercice bu Union africaine lu ni mel moom ban taxawaay la ci war a mën a am waaye itam yan conséquence lañu war a xaar parce que li ni mel mën na laal dëkk yu baree bëri yan conséquence lañ mën a xaar ci suñu dëkk ak it dëkk yi ñu wër sëñ Ibrahima moo jox la. soxna si jërëjëf en loolu moom euh, liñ ci bëgg a wax euh, liñ ci bëgg a wax moom ñu ngi koy tibbee vraiment suma xol ndox mën dama jàpp ne sénégalais bi mooy malien bi. malien bi aussi moom mooy guinéen bi na boo xoolee nous avons les mêmes valeurs les mêmes cultures lépp lépp lépp même aada yi la même même dundin bi la euh, coup d'état yi nag li muy wane pour man rek c'est vrai que la crise la frustration est générale mhm. li muy wane rek mooy un ras-le-bol ak namm souveraineté bëgg a yoraat sa dëkk mhm. téye li nga moom téye ko sa loxo loolu rek moom moo waral pour man les coups d'état du leneen ndax ñu fiy teg ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp dafa am ñu ñuy liggéeyal ndax tubaab bi moom bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu nax suñu bopp bu demee tamit day am ñu mu fa bàyyi ñoo xam ne dafa togg seen xel bu baax daa neen yoral leen ma dëkk bi comme ni ma yor ni ma ko naroon yoree moo fi nekkee. waaw délégation de pouvoir nga léegi nag gis nañ ni depuis même bien avant les indépendances ndax affaire bi commencé wul léegi. Mhm. mooy li ma doon wax léegi léegi Afrique tooñul kenn waaw. bien avant donc boobu ba léegi nag si on vit les mêmes nam namm changement ba tey jii nii coup d'état yi wane ko euh, nit ñi di ko condamné ak yooyu man je crois que loolu yëpp c'est un grand théâtre ay discours théâtral la rek loo xam ne jëmul fenn ndax injustice yi fi am bari na trop tey vraiment euh, structures yi ak organe organe organes yi condamné wuñ ko ndax euh, Ouattara bi muy forcé fi troisième mandat ñëpp teg nañ seen bët. Alpha Condé c'était la même chose. kenn yëkkatiwul Alpha rey ñu baree bari kenn waxu ci Mali ça a la même chose léegi nag tey jii bu ñu bëggee jug daan ne non way lii ak lii commencé door ay sanctions ñëpp xam nañ corridor li ñu naan corridor Dakar Bamako bi ak yooyu demee noonu xam nga mais eh, man lenn rek laa xaw a lenn rek laa la la la la la laay gërëmee quand la le peuple mooy li ñu jël euh, tey jii nii tous les risques. pour s'affirmer en fait daane tey ñi dañu bëgg moom suñu bopp ak lépp lum ñu jaral nangu nañ ko dékku noonu aussi lañ bëggee waa gine jël ko xam nga ñi fa nekk aussi li ñu def rek mooy ginnaaw jël nañ pouvoir yi loolu aussi moom au Burkina on a oublié le cas du Burkina donc cas yaa ngi fi actuellement bari nañ fi le cas du Burkina est loolu rek il est que nag la boo amee ay voisins moom da ngay ñaan jàmm waaw boo amee ay voisins da ngay ñaan jàmm comme Mobutu doon wax la politique du bon voisinage waaw pourquoi parce que fu ci tàkk rek mën naa ñëw dugg sa biir dëkk waaw donc lépp lu ñuy ñaan rek jàmm lañu ñaan jàmm yi moom dañ koy ñaan d'abord mu tàmbalee ci néeg yi génn ci kër yi ci mbedd yi ba ci àdduna bi loolu la ñuy ñaan waaw mais nag mu jaral ñu dara ndax maslaa bi aussi bàyyi fi lu mel ni la France ñëpp xam nañ toogaayam fii en Afrique pratiquement. ba gars yi dem ba doyal ci ba comprendre xam ne nii dañuy suuxal bëgg jël suñu jumtukaay bëgg cee pare mais nañ ñu dimbali pour ñu pare ci waaw léegi nag la crise en fait à l'international moom loolu tamit je crois que c'est une grande farce gars yi ñu ngi naan vraiment gis nga ñu ngi naan on parle vraiment troisième guerre mondiale man troisième guerre ba may yàgg na ah sérieusement bi nit ñi di deew xiif bu yàgg loolu yàgg na loolu c'est une guerre mondiale entre guillemets Hmm? c'est une guerre silencieuse parce que ñun ñaa ngi fi nekk di dee xiif depuis des longtemps yàgg na très très longtemps xam nga mais gars yi koy wax mais gis nañ fi américain yi ñu dem Vietnam seen dëkk lañ jógee dem ba ci beneen dëkk def li ñuy def américains yi jógee nañ fi dem ba Irak def li ñuy def Afghanistan def li ñuy def français yi dem Libye def li ñuy def xam donc yooyu yëpp tey jii nii mënuñu ko wax ba pare bëgg ñëw nag daan ne non et Poutine mais Poutine Ukraine xam nañ ni mel ak Russie mm-hmm. te dama leen di wax dara man je prends toutes mes responsabilités à le dafa baax ci dëkk bi dafa en fait dafa baax ci àdduna je dirais quoi Poutine genre équilibre la au fait am na yu baree bëri bu fi nekkul woon day am les américains vont les imposer te gis nga guerre bi yëpp ñu wax ça tourne autour du gaz ñu bañ ko ak ñu bañ ko wax. tey jii nii gis nga bu fi nekkul woon lu baree baree bari bari bari bari gars yi dinañu ko imposer defloo ñu ko par force waaw par que géopolitique moo demee noonu léegi nag c'est une guerre de média et de presse lu nekk da koy gis nag ci télé bi fu mu nekk ni surtout les français ñoom moom lu nekk lañ lay wax ci moom lu nekk dinañ la ko wax ci moom ah Poutine lii Poutine lii Poutine la lee waaw mais li ñuy ñaan mooy wax dëgg yàlla ko règle le problème jàmm am ñëpp nekkaat ci jàmm. loolu moom lay ñaan qu'on essaie de trouver une solution durable xam nga ay conditions boo xam ne na arranger les deux parties loolu daal lañ ciy ñaan di ko ñaan aussi suñu sous région te di wax ne wax dëgg yàlla nag l'heure de la souveraineté a sonné Macky Sall nag comme li nga wax dañ koy soog a faal à la tête de l'Union africaine euh, léegi nit ñi ne on les gens ont compris les discours guerriers là léegi ce qu'il faut faire mooy sur le terrain quoi nañ ne dara quoi. mais taxaw te nii non di wax naan damay def li def non les gars yi déedéet léegi sur le terrain lañ lay xaar lan la ñuy def nañu teggi sanction yi ñu ñu continue liggéey ñu bàyyi camions yi dawaat parce que gars yi doon jaay sama table yeeg gars yi doxaletuñ de fu mu nekk nii jamono yi dara doxal économie bi fu mu nekk nii tout est à tout est à l'arrêt fu mu nekk nii son chômage kon damay bàyyi rek Ousmane moo xam nga moo eggalee li ma doon wax ni xam naa moom ma ci gën a moom ginaaw fi muy liggéey nii seen porte d'entrée aéroport la moom a ci gën a xam dara quoi. donc euh, ñaari point yooyu moom bu Afrique ak bu géopolitique mondial bi au bu may njëkkee ci Afrique euh, c'est l'exemple du Mali comme ni ko sama frère waxee Ibra Joxaane au fait Mali c'est le peuple le peuple bi moo génn yàgg ci mbedd mi lool def ay mobilisation ak l'imam Dicko ñu demander à ce que vraiment ñu libérer leen parce que ñoom mënuñu woon comprendre ak Mali lu mu yaatoo euh, am force yu leen di jàppale mais à chaque fois ñi ñuy wax des djihadistes mënuñu régler problème boobu te aussi xiif gi coono gi yooyu yëpp vraiment sonaloon leen c'est c'est un coup d'éclat après que seen kilifa seen i njiit def leen un coup d'état ñoom le peuple à réaliser un coup d'éclat <coughs> ñi ne c'est illégitime ñee ne c'est illégal mais en tout cas daal peuple bi moo gën ne doyal nañu les militaires ont ñoom ñoo ñëw ne fii bu ñu taxawul ci digg bi effusion de sang dafiy am ñu ñëw gérer avec des responsables yoo xam ni aujourd'hui euh, xam nañu ni avec Barkhane et autres les francais son de dedans mais français yi ci seen bopp juboowuñu ci présence ci seen français yi ci seen bopp boo dégloo ku mel ne ay Mélenchon ak ñeneen mais juboowuñu ñoom ci seen bopp politique bi nga xam ni France moom lay exercer en Afrique et plus particulièrement au Mali parce que jàpp nañu ni dañu leen di utiliser comme on a toujours fait l'Afrique a toujours été ci àdduna bi Afrique moom mooy vivier bi nga xam ni ressources minières yi fa lañ koy jëlee ak les forces humaines boo demee tey tunnel ya ak affaire yooyu yëpp eh ay ñoo ko tabax ce sont les Africains qui ont libéré la France. Combien de Sénégalais sont morts, de Ghanéens, de Maliens sont morts pour la France Tiaroy 44, ñaata lañ fa rey eux ils disent que ni 50 Français dee nañu au Mali def ko catastrophe mondiale alors que des des des des Africains ñaata centaines de milliers de wala de millions de d'Africains sont morts pour la France et aujourd'hui boo demee même ci ancien combattant yi l' ancien combattant africain ni ñu koy fay ak l' ancien combattant français bokkul te ba mu desee dal dem au front ñoo jiitu woon ñu tuddee leen des tirs ailleurs aujourd'hui l'africain qu'on paye 300 euros le le l'européen wala le français mais il est payé à 1500 euros plus une fois plus pour quelle moo lay wan ni yamale bi mosul am ci dans leur tête maintenant nag la comme li ñuy wax dafa jot xam nga ay génération la dafa am génération xam bu ñu juddoo dem ci ñoom bokk ak ñoom ay école bokk ak ñoom ay université jàng li ñu jàng gën leen a xarañ bu ñu demee ci organisation yi africain bi jiite leen ñooñu bu ñu dellusee seen dëkk beneen philosophie la ñuy installé ci dëkk bi et ils ne s'en même pas compte da ngay gis tubaab bu ñëw wala nasaraan bu ñëw wala beneen dëkk ñëw ci dëkku africain di def benn stage fenn mais bu ñëwee ka ka nga xam ni moo fay nekk ndongo moo koy jiite jàngal ko liggéey bi cette mentalité là moo commencé changer ci africain yi muy Guinée muy Mali muy gana muy fépp <coughs> maintenant nag dafa am lu benn règle di wax un état n'a pas d'amis des intérêts ñun ak Mali wala Afrique sax lay wax Bismarck moo ñu indil problème yi yëpp avec la conférence de Berlin ils ont balkanisé toute l'Afrique c'est de l'écho yow fii am na uranium fee am na lii fee am na lii fee am na lii Sénégal nag nekk la porte de l'Afrique Père Joseph Ndiaye moo naan la porte du voyage sans retour ak Gorée combien de africains bien portant lu ñuy dugal ci ay bateau tegala leen comme ay gâteau yóbbu leen jaayi leen bu fekkee nar nga leen sondal ñu tëmbal la ci waax yi l'histoire ne ment pas et yu raison sur tout le monde mais nag dafa jot cette reconnaissance là mu am dafa jot aujourd'hui le monde juif on les a rendu ça li ñuy néew néew néew dañ leen di delloo seen yëf boo defee une salutation juive sax dañ lay condamné du ñoom du ñoom rek la ñu porté préjudice a porté beaucoup plus préjudice à l'Afrique que quiconque sur cette planète la donc dafa jot ñu duñ duñu ko négocier dañ koy foqati mais nag bu ñuy dem du xeex du dara moo ñu yóbbu waxtaan moo ñu yóbbu pour ñu xam ni ñu koy jëlee suñu njiit yi am tamit dañu am fulla googu mais Sénégal pooru pooru Sénégal ak bu Mali waaye c'est la même chose Air Afrique amoon na fi compagnie benn compagnie moo fi amoon Air Afrique mu déranger ñëpp di def une concurrence bu saine bu dëgër mu taxaw mais ils ont tout fait ba jël Air Afrique neutraliser ko Kadhafi mu fi bëggoon indi à travers Africa bëgg indi cette mentalité africaine ne ñu defaraat benn compagnie bu forte pour l'Afrique ils on tout fait pour l'éliminer même ak philosophie bu mu amoon installé satellite boo xam ni pour Afrique la ils ont tout fait pour l'écarter mais ñun ñoo war a am cette conscience là xam ni prise à part le Sénégal rek devant cette géopolitique devant le nouvel ordre mondiale du dem Mali rek du dem Conakry rek du dem Abidjan rek du dem dafa war a nekk benn benn benn benn groupe sous-régional d'abord Afrique du Nord Afrique de l'Est Afrique de l'Ouest et cetera bu ñu demee ba tënk partie yooyu ñu def benn benn benn benn benn benn benn benn globalisation de l'Afrique mu nekk Union africaine Union africaine n'existe que de nom aujourd'hui la CEDEAO lu prési président yi doon def doon def coup d'état euh, euh, coup def d'état ci ci comment dirais-je ci ci constitutionnel yi mais bu ñu njëkkoon jug ne leen hey lii amul donc peuple yi ñu def coup de li ñu def nii c'est parce qu'ils ont laissé faire ñu jàppee ko sax la conférence des chefs d'État entre eux te ñoom dañ leen indi au suffrage universel élire leen bu ñu demee ba yatus boobu am entre eux ak peuple bi c'est parce que y problème quelque part donc côté boobu moom sur le plan man nag dama jàpp ni comme li Ibra di wax frontière yi nii nii nii rek am na dëkk boo xam ne boo duggee tey nga dem fii ba dem am nga jaaree Ziguinchor dem kii dem am na dëkk boo xam ay bujo jet dangay dem ba dugg ci biir gine Bissau doo yëg ni sax yaa nga fa alors que yaa ngi da ngay jàpp ne yow yaa ngi Sénégal alors que génn nga frontière bi. Mali am na yoo xam da ngay dem ci frontière da yaakaar ni sax yaa ngi Sénégal alors que yow dugg nga biir Mali les peuples sont les mêmes culture cultures sont les mêmes Cheikh li mu doon wax. boo demee la gis la nigérien da ngay boo ñëwee fii da ngay yaakaar ni pëlu Fuuta ba la mais ce sont la les frontières moo ñu indi seet soo dee maintenant nag c'est devenu une frontière psychologique il faut que ñu dépasser loolu ñu xam ni entre entre africains ñoom xam nañu ni le marché africain mooy le meilleur marché du monde xam nañ ko de fii la ressources minières yi am fii la aujourd'hui pour ne pas faire pour ne pas def publicité gars yi seen surproduction yooyu ñuy def ca France ak ci kër mais fii lañ koy indi def ay boutiques yu yànj def ay rayon ñëw jaay la ko def ci ay étiquette kërëb kërëb am na ci sax ñooñ dañuy dem ci toolu ñaay yi jël fa ay produits ñëw teg ko def ci rayon yi jaay la ko l'exemple de EDK moo ñëw ne ils ont compris que ni dañu war a jóge ci loolu nañ ñu bàyyi di nax par des trucs imagés c'est conscience là la ñu soxla ci sunu d'abord sunu dirigeants yi il faut que s'il se retrouve man damay kontaan su ma gisee Paul Kagame le président Macky Sall leen jot sëf autour def def benn consensus di waxtaan loolu signal bu fort la aujourd'hui le président Macky Sall est devenu président de l'Union africaine euh, avant moom Ablaye Wade joxe na fi signal gis nañu ab Ablaye Wade taxaw ci tribune internationale yi di wax euh, waa waa waa waa waa comment dirais-je waa Nations Unies ne leen ba écoutez arrêtez du nous montrer boo leen ñu joxee xaalis rek di ñu wax fan nañ ko war a def def fi révolution ci bi fëgg ci table bi le président ghanéen l'a fait à n reprise ku loolu moo jot ñoom ñoom lool sas boobu la ñu am ci ñun recontrat bi ñu am léegi c'est dans l'international dans l'échiquier international ci tribune internationale yi qu'il s'impose waaw pour def nag jàdd bu ndaw dugg ci géopolitique mondiale ñëw nañu ba suñu suñu université Cheikh Anta Diop nee ñu l'Afrique et mal entrée dans l'histoire n'est-ce merci beaucoup le nouvel ordre mondiale day am par force xam nañ ko bien avant mais par rapport ak nouvel ordre mondiale boobu les gars veulent redessiner la redistribution de l'économie mondiale Poutine nag dafa am fulla parce que fulla fulla la am ah fulla la Ibra c'est fulla la am parce que moom nee na mënul nangu yenn yi Crimée ba mu ko jëlee c'est 2013 ba tey mais américains yi dem nañ fi Afghanistan ba ñuy ñibbisi gis nañu fii ci tele bi ay ay afghan di jug di langaamu ci ay avion ba daanu nañ fa génnee rafetut tam nañ fi dëmm libyens yi ba indil leen fi ay problème indil ñu ñun sax ci Sahel bi ay problème parce que ay intérêt moo taxoon enjeu politique la mais Poutine s'est dit que ni mais Ukraine bii bu génnee dugg ci biir OTAN moi je risque d'avoir des problèmes comme problème mu gaz et autres te ñëpp a ngi daw et entre Sénégal moo ci dafa bokk ci jànq yi en matière de pétrole ak gaz ak dafa bokk ci jànq yi. moo tax nga fiy gis ay président yoo xam ne pour ñu génn seen réew dem feneen mën nañ toog dix ans du ñu génn mais ci biir cinq ans mën nañ ñëw Sénégal six sept fois. dañ fiy ñëw parce que tout simplement enjeu géopolitique bi am ci àdduna bi dafa am ay matières première yoo xam ne boo ci toogee ba am contrat bi téye ko. yow da ngay am force ci enjeu politique boobu donc mënuñu nekk vache à lait ba pare ñuy nangu di tëral suñu bopp pour rendi suñu bopp mënu nekk il faut que les gens là se réveillent xam ni conscience boobu léegi moo taxaw maintenant nag Poutine ce qu'il est en de faire il est juste en de de de de de, de jauger l'équilibre mondial dafa ne ce nouvel ordre mondial là ne se fera pas sans moi et il a raison ñun tamit nañu am taxawaay boobu même buñ ko mënul def ci doole boobu Irak mi fi génnoon sax naan day kii uranium dañ ko tam dëmm ne wala dañu bëgg a de l'uranium et cetera et cetera n'est-ce pas donc yooyu yëpp day am c'est normal c'est entre eux c'est la guerre des forts ñun nañu dab dabalaat ci sunuy waax entre nous sous régionalement ba am consensus boobu ba mu dal ba ñu équilibrer sunu dugg ak suñu génn booy dugg Mali doo am problème booy jógee di dem Mauritanie doo am problème yoon yi yaatu tali yi yaatu ñu def fi ay raay économie bi ñoŋ bu ñu demee ba am puissance boobu ñu am une compagnie régionale wala sous régionale bu unique wala compagnie africaine bu unique ñu war a mën a génn comme ni ngay génnee dem Paris jóge Paris dem Belgique te doo am problème nañ ko géem a installé fii les textes sont là on a tout écrit yàlla def na sutura ba am nañu ay borom xam-xam yoo xam ni ils ont tout écrit tout am na ci ay pays africains sax pour vous donner l' exemple mais ñëw fii ci sous bi dañuy ñëw fii jël dépoussière jël suñuy dossier dem après dañuy def mise à jour rek dooraat appliqué mu jeex donc on a tout pour réussir donc c' message qu'on lance à nos am na ñun nag wax wax dëgg yàlla xeexu ñaay moom mbelentaan bu ci bëggee dugg day sonn yow écarté wul rek nga xool sa intérêt fan la nekk buñ la soxlaa di ñëw nga ne leen lii maa ko moom soo ma defalul lii rek Russie dina ma ko defal américain bi boo ma defalul lii rek Turquie Chine defal ma ko wala Turquie defal ma ko mu am nga am choix il faut avoir des choix ci ña ngay def parce que yow yaa yor lu ñëpp soxla il faut savoir faire le choix et signer de bon contrats yoo xam ni c'est pour la postérité parce que tamit jàng nañu fi ni euh, redressement euh, nu ma ko tëti euh, ajustement structurel réajustement structurel rééchelonnement de la dette yooyu yëpp jàng nañ ko fi gis nañ ko fi maintenant nag il faut faudra ñoom ñu jël seeni responsabilité par rapport à ça te que ñu xam ni la population maintenant est devenue consciente par rapport à ça te taxawaay bu mu laaj nag dinañ leen ko jox sur le plan intellectuel su le plan physique su le plan militaire aujourd'hui les militaires sénégalais sont les plus prisés en Afrique sax ailleurs ak gis nga Sénégal nu mu tudd 197 161 kilomètres carrés la approximativement ñu Founoudem, ces soldats la ce sont, machallah, encore une fois, c'est une occasion de leur rendre un grand hommage. Ah oui, de grands intellectuels. dem sur le l'échiquier international, leen fay respecté. Parce que tout simplement, dañ ko donn ci seen maam dañ ko donn, dañ ko tag, dañ dañ leen ci tàggat. Au passage, leen di remercions, di leen jaajëfal. Vraiment, on a une armée nation, machallah. mbokk internet yi ñu doon teewlu ci seen Euh, chaîne Vision Dakar TV jaajëfal leen bu baax a baax ci teewlu bi ngeen ñu doon teewlu mu mel ni jotaay bi amoon na solo waxtaan nañ xuus nañ ci actualité bàyyi rek suñu gan yi ñu dalaloon ginnaaw bi ñu leen gërëmee sant leen ci teewaay bi ak disponibilité bi bàyyi leen ñu tàggatoo ak ñi ñu doon seetaan. waaw donc euh, ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax donc euh, émission bi émission bu am solo la donc euh, di leen ñaanal yàlla na yàlla gën a ñoŋal seen mbir dafa leen xéwal au passage je ne mënuma tëj te gërëmuma samay wayjur te ji ñaan sunu borom yàlla na leen yàlla atte ci yërmandem gu kawe googu te defal leen teraanga jannatul darafi ak ñum fa ñam ñu fa fekk ñëpp ndaxte jox nañ ñu éducation boo xam ne tey wax dëgg yàlla mënuñu def lu dul sante leen ko mais aussi donc ci euh, retrouvaille bu ñu bokk des anciens élèves de l'école Pikine 5 mu nekk un vivier vraiment benn capital humain bu extraordinaire bu fa nekk xeetu qualité de personne de boo fa bëgg rek ci Sénégal am na fa des hommes valeur de valeur qui ont été éduqués à l'école 5 pratiquement ñu jaar fa dalee fa baa jëlee fa lu bari di remercier aussi bépp enseignant boo xam ne tey mës nga def ci ñun dara donc yàlla mi am fay yàlla na leen yàlla fay ñi nga xam ni aussi euh, ñuy monsieur Dione et te dañ fay dem de temps à autre ñi nga xam ne même waa jasporaa ña fa nekk jàppal ni euh, maître ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen jaajëfal di leen remercier encore une fois borom bi am fay yàlla na leen yàlla fay gën ji fay parce que àdduna moom comme li ngeen ñu doon wax rek euh, xam-xam dong ak jikko mooy tax nga génn ci di di jàpp ni mission bi ñu yor aussi lu ñu war a mottali ci suñu njaboot la yàlla nañ ci yàlla jàppale ba ñu mottali ko ci suñuy njaboot bu baax a baax muy yar ak teggin ak diine donc jërëjëf merci beaucoup. sëñ Ibrahima ñu bàyyi laa nga tàggatoo. waa leen gërëm bu baax di leen sant bu baax euh, euh, di rafetlu aussi émission bi euh, di di gërëm aussi suñuy waajur. di ñaanal ñi nga xam ne seen waajur dafa dëdd dañoo dëdd aussi yàlla yërëm leen te xaare leen àjjana tàbbal leen ci àjjana ya gën a kawe di ñaanal aussi waare tag di leen gërëm di ñaan yàlla def jàmm ci xol yi wéral xel yi def jàmm ci kër yi ci néeg yi ci ci àll bi ah, ci mbedd mi defal ko àdduna bi yëpp di ñaan li ñu wax yëpp mu doon njëriñ leen gërëm leen sant bu baax di ñaan aussi sunu yàlla defal ñu ay daje yu bëree bëri mu gën a waxtaan sur différents sujets te mu doon njëriñ kese. mbokk internet yi ñu doon teewlu jaajëfal nañ leen bu baax a baax amoon mbégte doon leen présenté seen plateau tey nag ñu amoon gan comme na sàll di yëngu ci wàllu transport aérien ak tamit Ibrahima Diokhane di yëngu ci wàllu immobilier ñu jaajëfal leen bu baax ci disponibilité bi ak déplacement bi euh, yaakaar ne rek liñ leen indiloon ci waxtaan rafetlu ngeen ko jox leen dig daje beneen plateau ak yeneen i invité jërë ngeen jëf ci Vision Dakar TV